mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax yéen ñi fi teew ñëpp moo bi ñu ngi lay nuyu di la ziar di la ñaanal jàmm di la wax happy birthday to you joyeux anniversaire di la ñaanal bu baax baax jàmm di ko ñaanal sa adversaire mais di ko ñaanal waa Parcelles yëpp ah waaw di am da loo xam tam muur nañ ko wax rek balaa ñoo sori parce que open press la wax mais des fois open press suñ ko waxee c'est pour la presse mais gis nañ ne saa bu ñëwee ci open press bi dañ ñuy dund xataal benn xeetu dund xataal bu nga xam ne nii doo ko non dañ koy wax xaadim non c'est il faut que ñu dénoncer ko parce que loolu c'est pas du tout normal yaar yaar bu leen bu leen doxalee non parce que li ñuy wax nii yaakaar naa yéen war ngeen ko bàyyi xel parce que il faut ngeen bàyyi xel Modou li may wax nii parce que loolu benn point la wax ko parce que Modou moo toog c'est le roi des arènes parce que loolu du Modou moo koy def wala ay nit yi Modou mais nag dañ ñu koy def ci ay open press du ko Modou kese bari na fu ñu koy defee te ñun liñ fi indi mooy jël message bi véhiculé ko nit ñi jot ci moo ñu yëkkati mais du leneen yaa ngi dégg loolu la ñuy wax quoi yàlla mooy Modou yaakaar naa ne wax nga ko. léegi fête nga sa anniversaire nee nga incha allahu bi li ngay ñaan mooy après combat bi nga ñëw fii ngeen continuer fête bi la fête continue loolu nga bëgg mais ki ko seqal dama seetlu ni seen jàkkaarloo bi ngeen mujj a def gërbël wala boog dal na sa kaw te bi ma laajtee sànq nañ mooy te premier ba ko njëkk a def Ibou Diouf moo ko wax moo njëkk a taxaw sa dafay taxaw sa kanam ne doo jàll deuxième bi fi mu ko dollee ci nga ko ba ma xëy ngeen ba ma xënte sa coach su wala boog mu ne ba ma xënte boobu am na effet bu mu def ndax ne na booy ñaa biñ ko ba ma xee dafa amati problème mu fecc kere ci bés boobu ndax biñ biñ ko ba ma xee dafa yëg foofu doole joo xam ne nii maanaam mu da koo denc ba tax sa mag ne ko ba ma xee yow boobu moom dafa amati problème pour mën a fecc ndax mu da koo tegal loo xam ne nii lu teg la loo xam ne pour bés boobu booy ñaa nga ci génn mais moom dégg naa ci ay waxam tamit mu ne la. moo la gën a saf mbër te bu la premier di nga xam ne moo la gën a loolu la Boy Niang wax ñaar yooyu rek laa lay laaj quoi loo ci dolli loo ci dolli. DJ nga nga nga nga nga defal lu bëri micro s'il vous plaît. waaw salaamaaleykum di leen nuyuwaat presse bu baax a baax a baax di wax ne Babacar dégg naa li nga wax mais comme ni ñuy wax rek li ngay boo gis faaw mu am organisation te defe naa ñi fi nekk ñëpp ku ci nekk bëgg mu jag moom moo la fay indi ba tax na xam nga wax dëgg bëggum rafet la ñu ngi jégalu bëgguñu kenn ñëw fii di am lu la naqare wala dara parce comme li nga wax rek. open bu ñu ko wax pour presse bi la ba tax na xam naa xër ci liggéey bi la wala yooyu rek mais ñoo ngi rafetlu waat encore organisation bi di nuyu ñu ko organisé bu baax a baax a baax di leen jégalu bu baax waaw comme li nga wax man signature bu dafa xew ba ma fa jógee laa ci pare comme ni ma dew ma am intention buuxante wala intention kii que ce soit signature moom fa yóbboon ma dem muy suma bu nekk suma contrat dañ jàpp pour jàkkal suma adversaire signature bi passé am lu ma def bii ñëw na waxaat naa ko puusal puusal ma def ko li ko def te li lu ma ci regretté te su ko defaatoon ma defaat ko ba tax na loolu lu ñu weesu la weesu na da ñaan yàlla moom may ñu talak fekk ñu jëm ci la premier incha allah. waaye waxu mbër rek ma ne ko signature moom mbër moo ne da ngay wax pour neexal rek mais a a saf mbër loolu le premier rek koy xam ne incha allah le premier rek xam ne le premier soxna bi incha allah di ñaan yàlla mu yóbbu fekk jàmm allah. waaw mu tey bien voilà kon nag ngeen garder boobu ngay journaliste. na gaawaay na gaawaay. mu gaaw mu gaaw sëñ bi na gaaw sëñ bi nga takk ko ci Serigne Ndiaye moo gën a gaaw jëlal kii ba la takk ko. waaw baax na buy téye day téye ci digg bi rek c'est bon. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu rek di leen ziar fu waay nekk rek si réew mi ak si bitim réew moo di ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di lay souhaité yow ak sa waa famille yëpp yaakaar naa ne am naa trois questions pour yow bi si njëkk mooy dañu dem keroog ci Boy Niang ñu laaj ko ma laaj ko question ne ko combat bi mën na nii ok ma ne ko amateur yu bëri dañuy xalaat ne combat Modou ak Boy Niang mën na nii mu ne ma temps bi dañ ko wàññi sax dix minutes mais bëgg naa ñu xeex man ak moom 20 minutes yu saf saf wuyoo ko parce que chaque jour da nga doon wax naan na dëggal boppam bii pan insisté na ci xeex ak yow xeex bu méttee métti ngeen doog a bëri lan nga siy tontu si xeex boobu. waaw comme li may wax rek am na loo xam ne moom waxu mbër la waaye naar kenn ko woo ci guurum soow kenn ku nekk xam na li may wax waxuma benn sama morom du may rey xale bàyyi naa la yàlla. balaa ngaa ñëw ci xeex sax man maa daa gën a xeex ba tax am na ñi nga xam ne waxu si affaire la waxu mbër la mais li may wax la première fois rek incha allah nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm incha allah lépp bu soobee yàlla. ok deuxième question bi mooy dégg nañ ñu fent benn bu bees ñoom waa Pikine ñëpp ba ci moom Boy Niang ak géwélam gàll ñoo koy tëggal golo wàccal sa morom yéeg boo ko bañee ñu ay xiir caw ko caw yu méttee méttee méttee. waaw loolu moom comme golo wàccal la man du ma golo du ma ko wax golo yi ma vraiment man nit njaay laa loolu na ko wax na ko wax na ko wax say si ay mindaafoon lañ rek ok takkusaanu premier janvier gis nañ ne daaw bëri na ko gañe ko ren mi ngi ñëw di ko bëre ci côté mobilisation rek foofu laay jeexale parce que question yi yaakaar naa ne bu ma xuusee yëpp rek du baax ci côté mobilisation dañu gis bii passé sa combat ak Ama billets yi bëri na lool mais gisuñu booy ci stade bi waa génération xarañ waa xarañ famille les jours si lan lan mën a waaj parce que bu ngeen yéexee càppaacoli yi dinañ feesal stade bi parce que ci ginnaaw stade bi lañ dëkk lan ngeen di waaj pour feesal stade bi dell balaa 10 heures. jërëjëf gars yi ah? parce que stade bi comme ni ñu wax rek jamono ji nag lu ci xew làmb je beneen làmb la woon. am tension bu ci am ba tax na jàll na lii incha allah gëm naa ne dinañ def stade Louga kenn mësul def bu soobee yàlla loolu lañ gëm incha allah. jërëjëf salaamaaleykum Modou ñu ngi a baax di nuyu ñu fi teew ñëpp. combat supporter yi la wala yéen a ko bokk. bii sama ndax confirmation la dafa am luñ def lu yàggu dara ci ndimbalu suñu borom le premier dañ ko war a confirmer incha allah ba tax na bii sama combat la incha allah. jërëjëf. mbokk yi ñu ngi lay nuyu di nuyu ñi fi teew ñëpp Modou ñu ngi lay nuyu di ñaan sa anniversaire bi yàlla ko féetee téeméer damaa ne sutura ak mucc ak xew ak képp ku yéene man benn question rek laa am mooy que ni dama gis 100 pour cent parcelle bi tey mu gis ci ay leaders yoo xam ni sa combat passé gisuma leen ci woon lan la adversaire bi toll noonu wala euh, bis bi toll noonu parce que gis naa fi ku ci mel ne Albouri ak ki nga xam ne bëri na ay leaders yoo xam te gis naa leen ci bis tey te gisuma leen sa combat passé lan la adversaire bi toll noonu wala lan la. waaw pourtant ñoom ñoom doon ñëw ah muy entraînement xam Alboury euh, foo passé dafa mën combat bu jege loolu moom moo tax gis nañ fii gis suñu frère dafa mbëri yooyu yëpp li may wax chaque fois rek dama koy compliment ñun ñoo bokk suñu parcelle ñoo bokk suñu espoir bu ñu def bu ñu dara tàggale li may wax chaque fois ute ay gis-gis wala ay bëgg-bëgg teewul ñëpp nekk ci jàmm ba tax na su may rakk lañ jàmm laa leen yéene di leen ñaanal jàmm yàlla defal ñu ko defal ko Sénégal yëpp incha allah Sénégal jëm jëm kanam mais làmb ji moom ñi nga gis fii ak ñi nga gis moom mbëru Parcelles yëpp a ngi ñëw entraînement vraiment. thank you so much waaye merci ci souhaité bi ma souhaité xam ko day di ci remercier rek di wax xam nga message yeeg lépp gis naa bari na mais période bii la nekk préparation ba da ngay xat mais ñoo ngi remercier ñëpp di wax ñaan yi yàlla nañu ko yàlla boole defal ñëpp ñu fekkaat yu bëree bëri di ko yàgg di feete ñun ñëpp incha allah ah. da ngaa xiif doo fi parcelle la parcelle dëggu teranga la da ngay jox lekk ba suur incha allah. waaw salaamaaleykum Modou ñu ngi leen nuyu di leen ziar di leen dox si waatuwaay di wax joyeux anniversaire ab Zeytouyou di wax ñu gudd fan lool ànd ak man ñaari question la am pour poser la ko premier bi mooy yow ak Boy bokk leen bëri. mais dama gis ne bëri Eumeu Sène dóor ko coup diagonal gauche mu wàcc boo ñëwaat coup droite la am moom tamit lay dóor tey boo njëkkantee kenn enquête sa morom coup boobu def ban effet lay bi mooy boo ko bàyyi ñu continuer. Ah, waaye nag xanaa kenn du dem euh, guerre nag di wax sa stratégie ah ba daanaka làmb la daal incha allah ñun li ñu war lépp muy ci bëre ci xeex muy ci physique alhamdulilah. yàlla dimbal nañ ci bu baax a baax di ñaan rek ñu fekk bis ko incha allah. ok d' merci. beneen bi si topp mooy dama gis nga bëri Ama Baldé rëpp ba gars yi nag da def appui ba ñoom ñu ngi laaj seen victoire nga gis nga raam te boo ñaan dama gis ni dafa am ndox yu bëri day liir jeu est ce que loolu yaa ngi koy sóoraale raam bu nga raam noonu boo ko defee si boo ñaan lan la la mën a dugal merci. waaw mais loolu du raam xam nga bëre boobu da ngay dem rek comme ni ma la wax fois da ngay yóbbu lii des fois fekk fa lii yóbbu lee fekk fa leneen. ba tax na ñun ci wàllu yëpp rek li ñuy pare ñoo ko préparé incha allah bis ba wax rek incha allah dañuy dem jëli ndam le premier ñëw incha allah indi ko parti bu soobee yàlla. incha allah asalaamaaleykum. Malang Sané journaliste des sports Modou ñu ngi leen nuyu di la sant di nuyu président Khadim Gadiaga di nuyu suñu doyen Aziz Diagne moom mi nga xam ne moo présidé tey jii manifestation bi. moo Modou ñu amoon ay crainte ci combat bi nga bëre ak Ama parce que 4 ans bëre woo ci arène nationale mosoo ko bëre. mais bi nga fa demee crainte yi dissipé wu na parce que am na ci victoire ngay bëri bër boo xam ne sur le plan tactique dañ naan dafa défensive est-ce que mun nañ xaar ne muuru dem fekk ko fi mu taxaw jëli ko ci combat bi ñu jëm le premier janvier merci. way ay crante moom ku koy am rek mooy dañu suivre wala xamoo parce que li ñuy wax rek année yëpp suñu rakk yi ñooy bëre ñuy ànd ak ñoom seen préparation. je mel ne góor bëri na fi franc bëri na fi ay talwaan suñu rakk ñoom ak ñu bëri bëri na fi ñu ànd ñoom ci préparation ba tax ñoo ñoo ngi dañu gisul woon ci làmb ji mais ñoo doon compétir baax a baax a baax ba tax na loolu moom amul problème dama amul sax maanaam moom course wala maanaam journaliste <laughs> ah non suñu grand maa lay ziar baax a baax course laa xamoon ci mais dara bonne continuation ci lépp. ayca ayca waxal waxal jërëjëf di assistance bi yëpp ba du 100 pour cent découverte waaw Modou Lo on avait question à vous mooy si préparation Modou Lo dañoo gis ni que Modou Lo dafa bëree combat boo xam ne nii il n'y a pas deux mois mu ñëw préparé ci diggam ak Boy Niang te c'est une première si combat wu Modou yi mu bëree yëpp mu bëreeg boo xam ne nii ñoom ñaar tolloo nañ ci taxawaay tolloo nañ ci doole. loolu noonu ban impact lay def ci Modou Lo ndaxte képp ku ma doon bëri dañ naan Modou Lo kii def ko sàcc doole ba ci combat bi weesu Modou Lo loolu doon dégg combat bi ban impact la am ci Modou ci côté préparation ak ci biir géew bi Modou Lo nan la war a aborder lamb merci beaucoup. waaw lamb moom li may wax man am naa adversaire bu nekk ci lamb ñi damay wax combat yi may bëri yëpp. Euh, bu dee quatre-vingt-dix pour cent samay adversaire ñoo moom mel dara ci làmb parce que macha allah parcelle am na catégorie bu nekk ma ne ko mbër bu nekk fii te ñëpp ñu ngi ciy ñëw di jàpp ba daan ay côté poids ak ay yooyu noonu wax dëgg yàlla amuñ ci benn benn benn benn problème vraiment. ok loolu kese wala. c'est ça. nee na impact bi. waaye comme ni ma ko waxee rek. làmb ji sama làmb bopp la te li may wax chaque fois rek. yàlla dogal na ni géej nañoo am lamb bu dul lamb lamb yu am yëpp wala lamb ay événement la lamb yu mag a mag a mag la maanaam dañuy wax rek toll nañ fi nga xam ne bis mënuñu dépassé bis mënuñu di suñu kaw xam nga ba tax na daal vraiment di ñaan yàlla am ay fekk rek incha allah baax na sore yàlla. ok Modou dugg nga fa sept fois am fa sept victoire ba loolu dafa yëngal Pikine lool ku mel ne Khadim Diallo daan nga ko fa daan fa Bouga Diop daan fa Laye daan fa Cheikh Niang moom la seen ñaar yoon Ama Baldé benn yoon muy sept combats sept victoires léegi nag ñoom waa deux saako pour cent mu yëpp ñu jóg ànd ak staff ku ci mel ne Magu Pikini ñoom père Palla père Mansour Diop ñu na dafa doy sëkk te deux cent pour cent bi saa buñ àndee mosuñoo ñàkk combat bu dul sa combat ak Eumeu Sène est-ce que les soucis tey ok ok ñoom saa bu ñu àndee bu nekk dañuy am doole te combat bi mooy daj dëpp gi parce que lu mën di xew muy nga am ndam moom muy mu am ndam dootoo bëri ak ñoom kon yaakaar na ne combat bi wàccaay la bu am solo boo xamante bi da la fay jëlee arène nationale bu nekk non saa yi comme li nga wax rek sama combat ak Amacem la defuñu woon 1000 pour cent sax combat Sokh ak Franc moo tamit ñaata pour cent la boo nee pour cent ñu ànd leen di bu baax a baax parce que c'est l'union fait la force li yëpp sport la day jeex tu li ma leen di souhaité lu ma leen di ñaanal mooy ñu ànd ñu nekk benn que sport day jeex live dafay continuer leen wax yàlla na leen yàlla defal jàmm ñoom ñu ñëw nekk 1000 pour cent ci la defar bi gën a métti incha parce que ñëpp ko yëg. am ku ne pour cent pour cent dina am ñuy toog ci lu ko naan nii mais da ngay ñëpp ñu ñëw incha allah say. maanaam nga daan leen jël bu rëy. Thank you.